complot bi la len di ñew expliquer parce que dañoo encore lu ñu waxan moom la ñuy fexeel Ousmane Sonko septembre septembre passé ñu dem octobre octobre ñu plan Julien Ziguinchor bi ñu xamé né affaire bi nar na réussir ci lañu jëlé avion ñom ñep daw dem Dubai première dame kërëm ministre yu bari dem négocier Karim Wade bu ñu réé Ousmane Sonko ba paré nan lañuy fexé ba placer fi Karim Wade foofu voilà protocole de Karim Wade lañ doon géré ci mooy protocole de Dubaï affaire Karim Wade lañ doon demi di ko négocier pour ñoom balaa ñuy wàññeeku euh, war nañu fekk ñu rey Ousmane Sonko yàlla weer na leen de yàlla weer na leen de donc Doudou Ka moo jël engagement boobu pour éliminer Ousmane Sonko mu jaral ka mu jël ay nit yoo xam ne Dakar la leen jëlee. pour ñu wàcc te attention ci ñooñu am na ñu ci am fetal de mais ñoom wu ñu génne fetal parce que moo dor du woon génne fetal mais bu ñu génnee fetal dañ leen di rafaal bu ñu génnee fetal ñoom ñëpp foofu la ñuy deewee ma ni nga déglu ma bu baax <laughs> lu intéressant lañ doon préparé loo xamee ni nouvelle bi daf leen waroon a fekk gars yi te Dubaay ñu koy féete Dubaay lañ ko waroon a population bi day jóg ñoom day fekk rëcc nañu ña nga biir Dubaï du leen fekk Sénégal ils ont tout programmé tout tout a été prémédité et programmé hmm. c'est Doudou qui a pris l'engagement parce que c'est pas pour un rien mu jël ay plus def ci ay nit xeexkat yi ak nervi yi pour ñu un genre. pour le coup bi mu daanu te xam nañ ni affaire bi bu ñu ko defee Dakar ñuy yéex a génn ba pare nga def ko ci ay heure yoo xamee ni guddi lay doon tout a été programmé ok léegi la tax seen coup bi foiré sa mooy bakkan dafa neex bi ñu fekkee oto bi ci biti ñu pour def provocation di tojate oto bi ñi nekkoon ci biti te amuñu arme ñooñu la ñu gaañ jam leen ay paaka ci loo sax bi ma xamul parce que ñoom rey moo leen taxoon a jóg rey rey kan Ousmane Sonko c'était l'occasion <laughs> te dañ ko oto Dakar yàq ci nit mu ñëw spécialement dëkkuloo Ziguinchor yow am na lu la tax a jóg mission moo la tax a jóg mission taw nervi yi gën a garaaw ci nervi yi nga xam ne pare nañu ñoom la ñu dugal oto yi pour ñu ñëw te Doudou Ka moo jël engagement boobu ci foog àddina yëpp ko